الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال بين لم يصل نوره بعين إلهي كن يجوك دوغي شيخ محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم mu jotal ay baat mu jëm ci talibé yi ay denkané su ko défé insha allah ñu jox sikarkat yi ñu wéy hamziya baba dugg ci mawlid gi bu paré insha allah ñu jox cheikh mohammed al mahi ibn seydi ali sisse mu jotal baati khalifa bi insha allah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيي جميع الحضور القادمين من شتى بقاع الأرض حضورا في هذه البقعة المباركة التي تعودنا اللقاء بها حبا في رسول الله وتعظيما له وقد قال مرة الشيخ إبراهيم إنها مؤتمر القلوب في التضامن مع مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التظاهر بمحبته وقد رزقنا الله رحمة منه وفضلا ببعث هذا الرسول إلينا وأيضا بعث من علينا في محبته والتظاهر بكل ما نملك من قوة على أننا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو من الله وتبارك وتعالى أن يتقبلنا من من حزب رسول الله ومن أنصار رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنصار الحق في كل مكان وفي كل زمان وحقا أيام الأنس قد تمت قد تمت الليالي في زينة المعالي في عدة ليالي في زينة المعالي كالجوهر المفصل حقا مضينا هنا في هذه الأيام العشرة أو أيام أنس أيام رفعة أيام اعتزاز برسول الله أيام اعتزاز بما نملك من الأخلاق الفاضلة أيام آه، آه، إكرام ضيوف الرحمن ضيوف الله تبارك وتعالى وكل واحد منا أنيسا لزميله وأنيسا لجاره في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تظللنا بظل رسول الله في حضرة الله تبارك وتعالى تمكينا لأنفسنا في ثبات على ثوابت الدين وعلى أسس الدين التي منها محبة رسول الله محبة رسول الله كما قال لا يتم إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فجرى ما جرى بينه وبين عمر بن الخطاب فقال له الآن يا عمر إذا فمحبة رسول الله هو من أساس هذا الدين آه لأن رسول الله لولاه ما كان ولا كان هذا الدين إذا فبوجوده وجود هذا الدين وهذا الدين الذي هو خرج بالإنسان من ظلمات الجهالة إلى نور إلى فيحة إلى نور الله تبارك وتعالى إلى السمحة إلى التآنس بالإنسان إلى معرفة حقيقة الإنسان التي الذي خلقها الله تبارك وتعالى محل كرمه ومحل رحمته ومحل لطفه وقد أنسنا في هذه الأيام التي تكاد أن تنقضي عنا بهذه المعاني السامية بين التواصل الإنساني في دين الله بين تواصل الإنسان في المحبة بين تواصل الإنسان في الوداد بين تواصل الإنسان في التراحم بين تواصل الإنسان في إخراج ما في أعماقه من طيب الأخلاق من طيب من طيب الأخلاق ومن علو التعامل مع خلق الله تبارك وتعالى آه، آه، رحمة من الله تبارك وتعالى لنا فقد عشنا هذه الأيام لطفا من الله تبارك وتعالى هذه الجموع كلها التي اجتمعت في هذا المكان بجنسيات مختلفة ومن بلاد مختلفة ولكن كلهم يحمل نفس الشعور حب رسول الله وحب رسول الله ينعكس في محبتك أنت أخي في الإسلام أنت أخي في الدين أنت أخي الذي يتعاون معي في تقوية آه، الدين في نفوس الناس وفي تقوية الدين في خلق الله تبارك وتعالى وفي إبقاء هذا الإسلام الذي دائما نجتمع لتجديد المبايعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتجديد تقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بفضله وكرمه الدوام على هذا النهج الذي خلفه لنا آباء صالحون من صفوة القوم ومن ومن كرام القوم أسسوا لنا هذا المنهج منهج التواصل في الله منهج إحياء آه، آه، محبة رسول الله في قلوبنا حتى يتمكننا حتى نتمكن من اتباع سنته وأن لا نضيع حقا من حق من حقوق هذا الدين وفق آه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم نحن من جماعة آه، السنة من جماعة السنة والجماعة وهذه من من المؤسسات من الأشياء التي يقوي الإنسان في تمسكي وتعرفي إلى هذا الدين الذي يملكها حقق كسر الخلافات وكسر ولكن النهج الصحيح واحد يهدي الله إليه من يشاء من عباده ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى هذا السبيل الذي به نصل إلى رضا الله تبارك وتعالى فهذا لهذا السبب اجتمعنا آلافا مؤلفة أو ممكن أن أقول مليون بشر اجتمعوا في هذه الساحة الضيقة ولكن مع ضيق هذه الساحة إلا أنه اتسعنا جميعا لأن القلوب هي التي تضيق لا الأماكن لا الأمكنة فبتفتح قلوبنا لبعضنا بعضا وبحب بعضنا بعضا وبود بعضنا بعضا في الله لا نحس بضيق المساحة ولا بضيق المكان إنما نحس دائما أننا في رحاب الله الواسع الذي يسعنا جميعا ونرجو أن نستمر على هذا المنهج القويم آه، الذي نطلب من الله تبارك وتعالى في كل صلاتنا أن يهدينا إلى النهج القويم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقد انتشر الضلال في هذا الزمان فأكثر المسلمين انفصموا عن أنفسهم ولا ولم يعودوا يدرون أين يضعون الأقدام يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا على أساس هوى في النفوس لا أساس من الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله يقتلون أولادهم بغير علم يقتلون أولادهم جهالة يقتلون أولادهم لتخريب بلادهم لأن شباب خيرة شباب المسلمين يموتون في أغراض حقيقة ليست أغراضا إنسانية وإنما أغراض الضلالة أغراض السفاهة أغراض العلمانية أغراض الديمقراطية أغراض المواطنة وكل هذه ليست إلا صياغات غربية أقنعنا بها على أنها هي الحق الموصل للإنسان إلى سعادة ولكن لا يجعل الإنسان أن إلا أنه يعود إلى الوراء قرار ونعوذ بالله من شرورهم فكسر فكسروا و و و و وعلت أصواتهم لإضلال الناس ولإضلال الشباب على أنهم هم الذين يملكون الحق والحق لا يملكه أحد الحق ملك لله تبارك وتعالى يهدي إليه من يشاء ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يهدينا بمشيئته إلى الحق الذي يوصلنا إليه ويرضينا إلى رضاه ويوصلنا إلى رضاه العظيم آه، ذلك هو مبلغ مطلبنا ولهذه الغاية نجتمع كل سنة في هذه الليالي المباركة نتزاور بعضنا بعضا وينظر ونتصافح بعضنا بعضا وكل واحد يتمنى لأخيه في ابتسامة عريضة مرحبا بك وجزاك الله خيرا في هذه الزيارة ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا أن يتقبل منا ما نقدم وأن يتقبلنا ويثبتنا على نهج سلفنا الصالح الذين وضعوا لنا هذه السنة التي ليس هذه السنة ليس فيه ما يضر الإنسان سنة الاجتماع بمحبة رسول الله والتظاهر به وزيارة المسلمين بعضهم بعضا وتصافحهم بعضهم بعضا وإظهار الود والمودة فيما بينهم كل هذه ليس فيه ما يضر الإنسان وإنما يضر الإنسان حقا ما يفعل أولئك الذين الذين يدعون أن لهم آه، نظر أن لهم وجهة نظر في الدين لا يدعو إلا إلى القتل وسفك دماء المسلمين وتخريب ديارهم وإبادة أموالهم في سبيل ماذا؟ في سبيل آه، آه، قالوا المواطنة وفي سبيل هذه الأمور التي ضللوا بها عقولنا ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى سواء السبيل أن يعيد كل المسلمين إلى سواء السبيل لأن الإسلام فقط هو الذي يستطيع أن ينقذ الإنسان من براسن الجهل ومن براسن الغواية ومن براسن الضلال ومن براسن الكبر والرياء هذا لا يمكن أن ينقذ منه أحد إلا الإسلام ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين نيو مكو yu tedd yi ñëw yëpp daje fi ci guddi ci bëccëg bi guddi yo xamné kenn ku nekk ci ñun yegna ci mbékté yegna ci kontante yegna ci bégee morom mi nga xamné fekk ci nako lo xamné amu dayo te dëgg-dëgg lool moy dayo diine naka la nit ñi di déggantoo innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna axawaykum wa qulu linnaasi xusnan waxante leen lu baax jëflante leen lu baax ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما يفعل بعض آه، الضالين الذين يقتلون الناس باسم الله وباسم دين الله وباسم آه، محمد وحقيقة ليس لهم أي دليل آه، ثابت في الدين على أن يقتل المسلم أخاه المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هذا جزاء من قتل المسلم آه، بغير حق باطلا وهذا ما يحدث الآن في العالم الإسلامي العربي الذي كانوا يجب أن يكونوا قادة للأمة الإسلامية ولو وجدنا قيادة إسلامية قوية متينة لكنا حقا أعلى من الغربيين حضارة وعلما وثقافة ولكن إذا انعدمت القيادة الصالحة تشتت الناس وتفرقوا وتكالبهم العلمانيون ولا أدري هذه الأشياء التي يقال في الصحف والمجلات آه، تضييعا للإسلام وتضييعا لحق الإنسان وتغريب الإنسان عن نفسه حتى الإنسان لم يعد يعرف من هو إنما فقط آه، آه، الاشياء التي تعرض عليه افكار قالوا افكار مثقفين باحثون آه، ضيعوا حياته كل هذه ليست أوضح منه كتاب الله تبارك وتعالى الذي بين أيدينا أوضح منه سنة رسول الله الذي بين أيدينا أوضح منه سيرة سلفنا الصالحين الذين حقا بجهادهم وصلوا بهذا, بهذا الدين وبزرع محبة رسول الله إلى قلوب هؤلاء الذين لا يعرفون عن العربية إلا قليلا ويعرفونه بعد جهد جهيد آه، فوصلوا إلى كل الناس آه، عجما عربا وعجما وغير عرب وغير إلى في أوصلوا إلى قلوبهم محبة رسول الله فتفانوا في خدمة آه، هذه الأيام المباركة تثبيتا للدين في نفوسهم لولو مو نيو داجال في نيغي نيان يالا مبولو مي داجال في يب كونك يالنا دهلو يجني مي يدف يونت سي خولم اك بوسم يوبوال ني نيب يالنا تسارو سي جام ني نيب نيو يك كونك يغني دفنا لو باخ سي بيسي باسي ناخ موي بيسي يونت يالا محمد ñun ñëpp kontaan nañ ci suñ gan ñi ñun ñëpp gan ñi itam kontaan nañ ci ñi gane si moo tax dama leen di wax ne dëkk bi ñun moomuñu ko dañ leen koy gardeel rek waaye yéen yéen a moom dëkk bi ñuy ñaan yàlla yàlla nañ nekk ay garde ñu ngi wax ay garde yoo xam ne bu ngeen ñëwee da ngeen fekk yàquñ dara ci dëkk bi dangeen koy fekk muy dolleeku da ngeen koy fekk muy dooleeku ci mbaax ci jikko yu kawe ci nit ñoo xam ne mën nañoo giseen technique ñi ci sibli ci mbaax ci lu nekk su fekkee ñàkk nañ loolu bu gan ñi ñëwee dootuñu amati fuñ nekk buñ xatalee nit ñi duñu fu fuñ nekk donc bon nu ngeen gën a mën a yaatalee rek yaatalu leen seen bopp waaye yéen a ngi yaataal nit ñoo xam ne dañoo jóge fu sori te yàlla moo leen tax a ñëw ma màggal yonent moo leen tax a ñëw li leen bàyyi Cheikh ma tëralal ne dee leen ko def ci ngeen gisee seen bopp ak seen diine loolu la ñuy ñëwal ci dëkk bi kenn ñëwu fi pour jalgati kenn kenn ñëwu fi pour wane dara lu dul rek man a ñëw ngir bokk ci dëkk bi dëggal ñaani baay gi ma gi mu wax ne ah, ah, ah, al ardu muldibatun fa axsibi al ardu muldiba fa bi eh, suuf si eh, bekkoor na maa ngi lay ñëw ñaan yàlla yow yàlla yàlla na nga ko meññal yow yàlla yàlla na nga meññal ku nekk xam ne ni lii meññat la meññetu ñaan googu la ñi ñëw ñëpp ñëw dañoo ñëw uy si ñaan googu yàlla bàyyi ñaanoon dañoo ñëw pour dëggal ko bon ñu ngi wax ñëpp ne leen dëkk bi seen dëkk la marhaban bikum ci waxtu wu nekk wax naa sànq ma ne nañ yéexee nañ yéexee euh, euh, kalimatu xalifa bi gannaaw moom moo ñu mooy sang bi donc bon kalimatu saada kalimatu saadaati sayidul kalimaati donc bon mooy mujjee li anna saaqi naasi axiruhum shurban ñun ñëpp ay taalimaatam lañ fi war a tasaarooyee ñun ñëpp ay taalimaatam lañ fi war a jógee bon nag gannaaw jotaay bi ñëpp ñu bëree ngi wax nañ bàyyi ba wax yëpp jeex nag ñu tëjee ko xayrul kalaami wa huwa al istimaau ila kalimati alxalifa wa tawsiyaatihi wa wa te te te loolu mooy dëgg xam naa ne ñu doon tëral programme bi ñoo yàkkamti rek ak ak ak pression bi nekk seen kaw ñu seen programme ni ñu ko war a tëralee mais nii la euh, ah, dugguñ ci dara ne dañuy gën a rafetal gën a baaxal euh, yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak xam bu baax a baax ne lu baax rek ci lañ jëm yàlla nañu si yàlla gën a dimbale yàlla nañu si yàlla gën a taxawe gërëm mbooloo mi daje fii yëpp euh, ñu ngi ñaan yàlla kuy ñibbi jóge fii ci dëkk bi yàlla na ñibbi la waaja waxoon yonent yow yonent ñëw naa lu may delloo يونس نكو ارجع ها ارجع بكل خير يونس نكو دلو اك جيو بو نيك ني ني تاميت ني نيو في اي نيت نيو كاوي اي برامي بال اي برامي بال اي بور اي برام خام خام يو كاوي كاوي اي برام دين يو كاوي كاوي اولياء الله يو كاوي كاوي نيوم نيب لا نيو يالا تانال داجال لا نيو سي مبار مي تا كين دنا وال موروم ها ñi am ci seen poche danañ wàll ñi amut ñi am ci seen maanaa danañ wàll ñi amut mana ñi am ci seen euh, ci seen soppandiku daaxil yéen danañ wàll ñi nga xam ne itam amuñ ko bon yépp yàlla daf koo dajale fii pour kenn ku nekk sédd sa morom te ku nekk ngi sédd sa morom ci la nga mënee ci la nga amee sédd sédd boobu ñu rek jar na daje bu mel ni ñu di ko am ndax nit ñi fuñ dajee rek te amee ko daje bu dal bii amut xuloo amut xeex amut am xastante mais kenn ku nekk rek ku gis sa morom rek dafa mel ni sa bopp nga gis ci moom bu ko defee mu nekk ndimbalante boo xam ne dëgg-dëgg moom la nit ñëpp soxla waxtaan naag euh, ay homme politique yu fi woon ma ne leen yàlla may na Sénégal taranga joo xam ne maa ngi ñaan yàlla Sénégal dégg ko xam ko ndax taranga bu rëy la Sénégal benn place la boo xam ne fi mu ne lieu de pèlerinage la Sénégal lieu de pèlerinage la ndax yéen a ko gis ak seen i bët ñëpp a ngi fi jógee te ñoom ñëpp yàlla rek moo leen tax a jóg ak yoonu yàlla Muhammad gëm ne bu ñëwee Sénégal dinañ ko am bon nag yàlla may nañu dëkk boo xam ne dëkk bu kawee la bon nag yéen ñi nga xam ne yéen moom réew mi yéen a ko yàlla teg seen loxo xam leen lu am maanaa loolu te dafa am maanaa économiquement dafa am maanaa politiquement dafa am maanaa itam ci gént yi nga xam ne africain bu nekk nga koy gént unité africaine base baa ngi nii su fekkee dégg ngeen su fekkee xam ngeen su fekkee nangu ngeen su fekk rëy jaarut seen digganteeg waaw waa daara ji dañoo mën a wax dara fekk waa daara yi waa daara yaa ngi fi de waa daara yaa fi bu baax a baax ak seen ak seen kattan ak seen mën-mën ak seen xam-xam waaye nag euh, euh, séddale Sénégal côté bi côté bi euh, vraiment defe naa jamono passé na loolu jamono passé na loolu jamono mooy nit kii lañuy xool lu mën lu mën a def lu mën a réaliser pour mu baax ci nit loolu rek mooy jamono bi su fekkee mën nga ko am nga ko buntu bu la ko yàlla mën a wonee tam bunt bu baax rek boo eboo soobu ci xam ne lii dafay defar bon nag yàlla may nañu Sénégal mu nekk lieu de pèlerinage nationalité àddina bi yëpp a ngi ni daje fi bon nag yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla teg seen loxo Sénégal jël leen loolu xam ne yóbbal bu mag la pour yéen à l'avenir dina leen dimbale si seen politique ci unité africaine dina leen dimbale seen politique économiquement dana leen dimbale seen politique jokkalante boo xam ne jàmm dina ci am ah ndax euh, Arabie Saoudite boo demee lim nekk lié de pèlerinage rek moo ko àggali foofu mu àgg yëpp ndax li muy jëlee ci pèlerinage bi du ko jëlee ci sax pétrole bi bon nag gannaaw am nañ ko te àddina bi yëpp a fiy daje dëgg-dëgg loolu war ngeen see bàyyiwaat seen xel euh, yal na yàlla dimbale leen ci ubbi seen xel ngeen dégg situation yi dëgg dëgg lan la bu ko defee ñu liggéey ci sens boobu ñun ñëpp ñun ay ndongo daara rek lañ dañuy jàng di jàngale xam-xam xam-xam moom mooy xam-xam rek boo xasee ak si njolante rek mooy xam-xam tubaab bi moomu ko arab bi moomu ko keneen moomu ko xam-xam xam la tudd te yàlla moo ne man yàlla maay jàngale mooy yàlla maay jàngale allamal insaana maa lam yaalam allamal insaana maa lam yaalam nit kooku nag waxut ne ku weex la waxut ne ku ñuul la waxut ne arab la waxut ne làkkat la nit la wax ne man yàlla maa ko jàngal donc bon yàlla nañu yàlla may xam-xam boobu nga xam ne yàlla moo koy jàngal nit ndax mu mën a am njëriñ ndax xam-xam boobu Cheikh Ibrahima amoon ba mun a def lii nga xam ne njëriñu Sénégal la njëriñu Afrique yëpp la ah, loolu mooy xam-xam ah xam-xamu euh, jamono ji nga xam ne nit ñi dañoo réer réer nit nit dem na ba fàtte boppam xamatul fu mu jëm tas na mais ni caq bu tas bu ko defee nag gars yi di leen njëkkalante laïc yi ne leen ñëw leen fii affaire yi laïcité la démocrate yi ñëw leen fii démocrate la libéraux yi ñëw leen fii c'est les libéraux yooyu moo leen di musal dëgg-dëgg yooyu dara mënu cee musal nit ndax dara amul kattanu attan nit ba di ko defar nit yàlla mi ko am bind rek moo am kattanu defar ko ndax alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir maliku samawati wal ardi wa malikul mashriqi wal maghribi wa malikul insani kooku rek moo mën a defar INSAT keneen ku dul moom defar ko yàlla nañu yàlla dimbale bu baax a baax yu baax yi nga xam ne doon nañ ko mu kawee yépp yàlla nañu yàlla dimbale ñu saxal ko parce que ci suñu bopp rek lay dellu ci suñu réew la ñuy tabaxal waaye leneen lu dul loolu buñ ci nekkee rek dañuy nekk ci li ñuy nekk rek lañuy nekk ñii di rayante ñii di taal seeni dëkk ñii di fexelante te pexe yooyu nit ñaa ngi ciy nekk di fexe ba léegi ndax amuñ ba léegi solution boo xam ne ci la ñuy utee pour arrêter nit ray nit amuñ solution bi ba léegi amuñ ko ci États-Unis amuñ ko ci France amuñ ko ci Grande-Bretagne amuñ ko fenn waaye fuñ ko mun a amee dëgg-dëgg pour am ko te muy dëggu euh, mooy mooy ci biir l'islam di ngeen ma wax ne jullit ñi pourtant ñoom rek ñooy xeex fi mu nekk évidemment loolu noo ñoom noonu lañ ko bëggee ñoom noonu lañ ko bëggee na xeex bi nekk seen diggante ba bu agsi ci ñun bu ko defee pexe yuy am rek ñu ngi koy jaarale ci biir euh, ci biir monde musulman bi ñoom tamit ñu nekk fii di xeexante di rayante euh, kenn tuur seen deret yi yàq seen kër yi lakk seen économique bi loolu yëpp kenn xamul lu muy jëriñ yàlla na ci yàlla musal Sénégal yàlla na ci yàlla musal Sénégal yàlla na yàlla musal ci ay ci ay wu nekk ay doxantu yëpp yàlla ñu ci musal ay yi tiital nit ñi yëpp yàlla ñu ci yàlla musal yàlla na ñu yàmmal yàlla sàmmal Sénégal ba nga xam ne ah ba nga xam ne ñi ko jiite danañ am jàmm liggéeyal Sénégal liggéey boo xam ne ñoom ci seen bopp ñu ngi ciy njëkk a kontaan bala cee Sénégal lantaan bee kontaan ndax nit lu mu def lu baax rek dana xam ne def na lu baax loo xam ne moom lañ yaakaare woon ci moom ñu ngi yaakaar gis Sénégal mu kawe ñu ngi gis yaakaar Sénégal gis ay mbedd yu yaatu télé télé euh, tali yu yaatu nit di tukki ci jàmm di génn ci jàmm ñu ngi yaakaar gis ci Sénégal beneen capital Dakar de waaye nag ñu am ay capital régional yoo xam ne bu ay international du Dakar rek ngeen am waaye dañ leen yóbbu dañ dem yóbbu dañ ko defi Kaolack dañ ko defi Saint-Louis dañ ko defi Thiès waaye benn capital rek mënuñ génn yóbbu fenn dëgg-dëgg loolu war bu baax ndax ñu tabax suñu Sénégal comme ñu ko bëggee wa محمد خير البشر محمد هادي الأمم محمد شفيعنا يوم المحشر محمد عبد الله سيد خلقه محمد لا يرى مثله في الدنيا ولا في الآخرة ولا في المحشر ولا يوم القيامة محمد والعبد حقا والأنام عبيده محمد بشر وليس كالبشر صرف الحقيقي وربي طه سماه محمد عمدتي محمد وزري أنا طفيليه وابني مسماه محمد لن يرى في الخلق مثله ولا يرى ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره ولا في البرزخ وحتى ولا في الجنه مثل محمد صلى الله عليه وسلم نيوسنت يالله باخ باخ باخ نخ محمد صلى الله عليه وسلم موي كيغا خامني يلا بمكو بغي بندل منك خاتم الأنبياء والمرسلين هيأه تهيئة ما حصلت قبله ولا بعده من يونت بي صلى الله عليه وسلم بكو يلا بغي بند يلا بريبار نكو بريبار سيو بريباراسيون بو خمنه مستأم شي كرمم musta am ci gannaawam musta am ci ñu njëkk musta am ci ñu mujj sallallahu alayhi wa sallam yàlla lu mu ko njëkk a tànnal mooy suuf muy ardu makkata nga xam ne foofu la juddoo fa la baayam juddoo fa la maamam juddoo fa la ay mbokkam yëpp juddoo ardu la arab yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama njëkk risaala bi di ñëw ci moom am na ay place yoo xam ne dafa amoon ay koom yoo xam ne nit ñi daan ci mën a di jëf jëflante pour am ay rise richesse waaye Makka bokkutoon ci place yooyu ndax jaziratul arab kaana lahaa ذات في علاقاتها المكانية جزيرة العرب أمون أي بريفيليج يو خمنا أمون ننكو نخ يونت بيتخون نيو أمكو مويلان موي ريلاسيون يدخون ديغانت نيني باي ني دمانت دي ديغانت بوبو غير أموت بوبو بومبا أموت بوبو يبلو خمنا داي faagaagal doomu aadama xamaguñ ko woon yonentu boobu nag sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moo indi lislaam wax ñu ne maa ngi leen di oo yéen ñépp ñëw ci diine yàlla ji dafa mos toog benn bés mu def invitation bu mag invité mbooleem notable yi Quraysh yi bi ñepp dajé mu ne len ndax man suma len waxon ne am na xare buy di attaque si Makka te soriwul ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko bu baaxa baaxa baaxa baax mu ne kon man ma ngi len di wattulo lo xamne ne mo koy tek kep ko xamne du julit na ngeen nak julit bayam Abdul كان شبايا من هل أبو لهب ما كنا تبا لك ألي هذا جماعتنا تذكر أن يالا ليه تخد نيوه يوم صلى الله عليه وسلم تقول مدكوراجي كوراجي كان كنا كدمنا جموم yonent bi su nit ñëwaan bala ko kenn seeti yonent bi ma koy seeti ne ko dama indi dina ju bees te nëbbuma ko lu leer laa indi kon jàpp ci ñépp di ko móolooka di ko xasaka di ko génne këram même ci taayif ba mu ne dafay dem ca taayif bu seet ba xam ne foofa nag affaire bi mu indi dana fa mën a ji jébbat jébbatee jébbee waaye bañ demee taayif waa taayif yi boole kook seen xaj yi ak seen gone yi ñu di ko sànni xeer ba tànk yi nuyu sallallahu alayhi wa sallam tànk yépp di nàcc yonent bi toog ci benn place foofa di waxtaan ak boromam ne ko yow sama borom la tax lu tax nga bind ma du lii de moo tax nga bind ma xam naa ko waaye danga may bàyyi ak ñi nga xam ne ñu ngi may mbugal te ñu ngi fexe ba li nga xam ne indi naa ko du jóg waaye nag ba mu ko tawatalee borom bi rek la gis solution yonent bi sallallahu alayhi wa nekk biir màkka ragalul tiitut dawul daayul képp koo xam ne ñëw na màkka mu ñëw na la man dama indi diina ju bees léeg ko am ko ko saaga sax ne ko diina ju bees ngay indi yow yonentu bi sallallahu alayhi taxul mu découragé mu nekk màkka di oote am ay nit ñu néew a néew am ñe bi demee ba am ñeent fukk te Seydina Omar moo leen ñeent fukkeel ñu ñu ñu ne yonent bi léegi am na doole Seydina Omar bu ñëwee eh, eh, eh, di tuub yonent bi sallallahu dañ ne ko Omar a ngi ñëw ñëpp tiit julli ñi bugg daw yonent bi ne ubbi leen ko يقبل كو مدالي كو يفكي بين لوخرك عمر دالي غور منكو عمر دو دو يم بلا لي نيوان نيوالون ني نيك ني نيوال لا كلو عمر خني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كرو بيم توبه بايدانكو وخني عمر توبم غي دا فا ملني lislaam daf doon dox jëm kanam waaye bi Omar duggee ci lislaam dafa gën a dox bi mu ko defee biñ toogee ba waxtu julli jot gars yi commencé di préparer gamb yi ak jumtukaay yi nga xam ne ci la ñuy mën a jullee Seydina Omar ñëw ci yonent bi ne ko li ñu def nii lan la mu ko ah xanaa dañoo bañ ku mbugal walla ku leen fexeel waaye lii de moo moom la yàlla santaane keroog la Omar na lii dootu amati mu jël jullit ñépp ñuy ñeen fukk mu xaj ko ñaari xaaj benn bi mu jiite jiite ko benn bi Seydina Hamza jiite ko ñuy kabbar jëm ci ci kaaba gi ku génn la lu xaw ñu ne ko Muhammad day mooy ñëw ñëw noonu ci kaaba gi moo ay nitam Muhammad ñu ne ko waaw ñu ne li ko ci xiir ñu ne ko Omar ibnu Xataab ñu ne ko ah kooku de moom jàmbaayu fàkk tëdd la joo xam ne kenn du ko eh, eh, fexe ba eh, gàllankoor ko yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw màkka nekk na màkka benn bés di julli ben abu jaal ñëw jël tànkam teg ko ci loosam ba bët yi buqeeku ba yonent bi di waaj a dee ndey faatimatu doomu yonent bi moo ko musal keroog moo ñëw ci gaay yi daldi ne leen da def lii koo xam ne dafa oote jëm ci yàlla keroog ndey faatu matu moo ko musal moo tax jigéen رغم سبرين ورجال جل الإسلام نكين يكر جبل جيون تبي صلى الله عليه وسلم موي سيدنا أبا بكر كي توب موي كان موي سيدتنا آه، خديجة بنت خويلد كرو بما خمينة خديجة بنت خويلد جمنا يون تبي صلى الله عليه وسلم نكونك من suma alal yëpp may naa la ko soxlaatuma dara mu ne ko ah, looy looy looy desal ci sa commerce bi mu ne ko commerce bu mag bi mooy yow moo tax jigéen rolam ci lislaam c'est prépondérant mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yonent bi mooy gën ji mbindéef mooy ki nga xam ne lépp lu yàlla maye ci moom la jaar ko mooy ki nga xam ne keroog aljanna bi ñëpp tiitee ca alasaat ya jaar na ma di ñëw ak di lakk si nit ñi ñëpp tiit ñu ne nu ñuy def am ku ne nañ nañ daw làqu ci ci maam aadama ñu ñëw ci aadama mu leen man taluma leen tey man lekkoon naa garab ga te xaw ma ndax yàlla dana ma ko jàppeem tey um déet seet leen keneen ñu ñëw ci nuux mu ne man man mi nga xam ne maa rëbboon suma xeet bañ alaku man kay bokkuma ñu dem ci haaruna dem ci muusa dem ci di dem di dem di dem nag ba ñëw ci isa mu ne man taluma leen ndax man dañ ma doon jaamu te ma yàlla kon xaw ma lu ma yàlla di def tey ñu ne kon nag kenn rek moo ci des mooy nday mbill gi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ñëw ci moom ne ko jaar na ngi nii di lakk nit ñi te yàlla tànnagut ñi gëm ak ñi gëmul yonent bi daal di dem sujjóot ci kanam boromam wala mu bugg a sujjóot yàlla na ko tey du ba sujjóot tey bésab ramm la bésab def lu baax la képp koo rammu ramm naa ko yàllaa ko waxal loolu sallallahu alayhi wa sallam ba Seydina Omar bi doon na nettali loolu benn bés ne yalla dem na bët dana tibb ñetti guufin ci safara dugal leen aljana ñoo xam ne yàlla woon nañ safara Seydina Omar ne yonent bi ñett doy naam du ko yàkku mu ne ko wallaahi benn gufinu yàlla mën naa musal képp koo xam ne xelama woon ci gëm yàlla kon kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax nag mu jógee màkka am na dañu am ñu wax ne dafa daw waaye wallaahi dawut ndax ku dund ba am quarante ans nekk biir màkka lépp lu màkka di def moom la ñu jiital koy tukki sa alal moo koy dénk képp ku am soxla moom la koy wax moo tax nday aïchatu ne na ko wallaahi yàlla du toroxal yow da ngay jokk mbokk yow da ngay faj aajo yow da ngay dox ci aajoy nit ñi kon yow yàlla du toroxal mukk sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk Makka ñi di ko buntu xataal di ko buntu xataal ba benn bés nag ñu ne Qurayshi ne daal li ñu doy daal fi ne mooy nañ ko fexeel rey ko tey ci guddi gi dañu jël ñeen fukki waxambaane kenn ku nekk ñu jox ko jaas yi jaas yi juñ tooke ñu ñëw fekk yonent bi fi mu tëdd ñu dóorandoo ko benn yoon ñeent fukki nit dóorandoo ko benn yoon ndax deretam tasaate tasaaroo ci biir arab yi kon kenn dootu am loo laajee diya mbokk yi duñ laajee duñ laaj diya ñu ne loolu lañ fexee yaay waaye ke guddi gi nga ko nar a defee yàlla ko ne muhammad bu fi fanaan tey demal génnal bi mu demee ba génn taxaw jàkkaarloog màkka ne wallaahi su taxutoo nag li ma waa màkka génne du ma génn màkka màkka laa xam fa laa juddoo fa yaroo fa ma yaree lépp lu ma am ci màkka laa ko amee kon billaahi suñu fi bàyyi woon man du ma dem fenn waaye nag gaa ñoo ko buntu xataal ba mu haajara dem madinatul munawwara sallallahu alayhi wa sallam keroog bi muy dem dafa a Seydina Ali ne ko kaay tëdd ci sama lal bi sangoo suma mbàjj gi bu gaa ñi ñëwee fekk di jàpp ne maa ngi tëdd ba tey te fekk ñun dem nañ ñun Seydina Ali daldi nangu ñu toog nag ba <clears throat> Quraysh yi waxtu wu ñu waxoon waxee ne waxtu wu ñu waxoon ne dañ koy fekk song si biñ ñëwee gis gis ñu fa kenn moom dem na madinal munawara madina googu fa la ko yàlla dimbalee mu tawax lislaam ci ponkam yi nga xam ne tey ñun ñii ci la ñuy jëriñu muy shahaadat shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah muy julli muy azaka muy koor muy aj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu njëkkee ñëw Medina lan la njëkk a tabax ndax néegi boppam la tabax abadan bi yàlla bi la rëbb la rëdd ne man néegab yàlla bi laay njëkk a tabax moo tax képp koo xam ne bëgg na yonent bi soo demee ci béyam da nga fekk fa jumaa joo xam ne kenn mënta gis lu ko lu ko rafee rafetee noonu bi benn ngi nii jàkkaarloo muy jumaay bàyyi ji kon yonent bi sallallahu dafa ñëwoon pour sauver doomu aadama yi waaye am na ñu ko bañ moo tax yàlla dafa leen di alak yowmal xiyaamati moo tax bàyyi na ko keroog bi nit ñi ñëpp ñëwee ci yow làqu ci yow ba nga dafa leen safaa bu keroogee mën naa la xaacu ne la yow yaay sangi way njëkk koy mu mujj بيقول لكم بقى يفكركم متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشدو بالثنى وألوحه بس بو مينة لو الأمنة من ما يوخو ما ينك سكير جيل كروب ما يوخو سدور هم غنى كوي نيم كوي خلاد نيب بس بوبا bu ñëwee moom mooy ما ينك kon kooku ragalu dara ndax xam na ne فيو yonent bi dem مؤنق مهم تفاوض صلى الله عليه وسلم